Uh, bakkan bikum bakkan yaa ngay rot deret yaa ngay walangaan ca Gine Konakri ñaar fukki doomu aadama ak juróom-ñaar rey nañ leen fa allah vox populi moo ñu ko xamal farandooru daleen jàllo ya ñoo wax li ni mel gouvernement ba nag na leen fa ngeen koo yokk matul loolu fukki nit ak ñeent ñoom lañ fa rayagum démb rek ci àjjuma ji ñetti sandarma faat nañ leen fa ak benn civil ba tax mbootaayu xeet ci àdduna bi waa ONU mel ni ku naan leen waxuma wen sept personnes waxuma quatorze personnes bakkan ñu rey ko ngir ay wate fa ñaaw réewum Amérique feelu ko ne kilifa yi réewum Guinée yéen laay waxal fitna ji bakkan yooyu ngeen di faat ñun ñu ngi koy ñaawlu de fa ñoo bëgg nag mu dakk procureur CPI moom ma leen di artu ak a dànkaafu maître El Hadj Diouf avocat wu Cellou mel ni ku naan leen ñaawlu nañ ko artu nañu loolu fa doyut xam nga luñ bëgg mooy ngeen jóg dugal seen loxo ca Guinée balaa réew maa tàkk tàbbi ci guuta yaaw seetal janoog taskatu xibaar la doon amal waaye xamul lu mu yàkkut waa CEDEAO yi mbootaay réewu Afrique sow El Hadj Diouf na duñ dara duñ tus ñu ngi ne tekk kenn déggul ñu wax wala ñu jéem a lijjanti la am Guinée xam nga lu tax Alpha Condé fa leen a jox xaalis bu bëri moo tax ñu noppi te gis ngeen mbooleem président bu nekk Afrique di laaj ñetteelu mandat xamal na yow fa ngaa dof te fa ngay wor sa askan Alpha Condé nag noppi na ngir rey mboolem mbooleem Guinée ngir bañ a jógee ca nguur ga le quotidien yéen a kaay ne man kay li ma jaaxal mooy fi àdduna toll jamono jii vingt et unième siècle naka la ñuy amalee ay élection toog benn ay bés une semaine doodu joxe résultat ya wote moom fu ko defee fekk dëgg rek la wax bu ngoon jotee bureau de vote ya génn rek ni ñu danañ xam ko gagné tey nag ci samedi ji la xaar résultat négandiku ya yéen a kaay bi ne Alpha Condé moom li mu bi mu ci kujje gi waroon naa rus nekk président di rey Guinée ya ak bañ jóg ca nguur ga yow mbuqi nañ la fa ngaa a dem fori new vox populi na ko hé <laughs> Alpha Condé rey Guinée yi bañ jeex mu toog seen kaw nekk président jaral na ko yaw seet Sall ba militaire ya la wàcce ca mbedd ma ngir ñu jàppale police yi ci rey seen askan wa aay yéen a kaay bi nag ne li koy yoot nag baaxut ci moom de ndax guinéen yi seen bopp bu ñu demee ba gis ne kii fa bëgg ñoom ñoom ñu dee fa ñu mujj ëlbatiku contre ko su boobaa xay xenu ko Dakar Times ne seetlu daleen jàllo nag ay farandooram woo nañ réewum France ak Amérique seen ambassade ya nekk Guinée ne ngir yàlla nañ ñëw aar seetlu daleen ndax konde ak ak maître El waaye CEDEAO ñoom fañ leen a ger duñ aar duñ lijjanti dara kàddam yaa ngi ci li yéene kaay li wérte wër mooy société civile bi nekk Sénégal àllarba fay dox doxub ñaxtu ngir ñaawlu fitna ja am Conakry wal fajiri yéene kaay ñi ko xamal lépp ngir jàmm del siwaat fa nay leer nen lu leer ba yegg ca naññi ja moy na Barça mbaa Barsàq fi mu toll ni fa gën a takkarnaase fa gën a bëri Sénégal ndaw ñaa ngi ci gaal gi dugg ci géej gi téeméer ak juróom benn fukki doomu aadama teg nañ leen loxo ca diwaanu Mbuur fa ñoo bëggoon a dem bitim réew jaare ko ci gaal gi laas yéene kaay ñi ko libération ñoo ne ko ma yokkal la ci gis nga si ñetti fan ñaat téeméer ak fanweer ak ñeenti doomu aadama jàpp nañ leen ñu bëggoon a dem bitim réew ci gaal gi ñenn ña mbuur lañ leen jàppee ñeneen ña ndakaaru ña ca des barñi ba tey yéene kaay bi ne xam na sax génn gaal goo xam ne fa tàkk jëppéet xam na ñu ca mucc waaye xam na ñu ca deedee xamuñ na ñaata la te liñ seetlu mooy am na ay ndaw na xale yu amul fukkaat ak juróom-ñett yu bëggoon dem bitim réew ma dem ci enquête yéene kaay fekk fa ñi bëggoon a yóbbu nit ñi bitim réew borom gaal ñett lañ teg nañ leen loxo lañ wax nag mooy ñaat téeméer doomu aadama lañ bëggoon a yóbbu bésu gàmmu gi ci lañ waroon a dem takk na leen xalaa ma ndir xalaa xalaa du ngeen fi jaar ndax fa ngeen di dee ci géej gi bu ngeen yeggee bitim réew it coonaang fa liggéey xamut fa te yoon wi ngeen jaar baaxut li baaxut presque Sénégal mooy plan Orsec ngir xeex wàllu mbënd mi njiit réew Macky biñ ko door léegi mat na benn weer tey nag si du quotidien ne presque dara fi baaxut tey la mbënd mi ndox mi gën a sonal askan wi lañ digoon dara ci defut aa yaaw hôpital Kër Massar ba léegi njaw des na aw xambin askan waa nga ca coono Parcelles Assainies ak diwaanu Ndar moom plan ORSEC ba nañ ko doxalee moo jaarut yoon diwaanu Ziguinchor dara lu sotti presque amagut fa diwaanu Diourbel ba léegi am na fa kër yoo xam ne ndox maa fa fees dell nay leer li leer sutu Touré bi jëwrin ci jamonoy Abdou Diouf mooy acte 3 bii teel na lool ngir ñu xayma baax naag bon na wàllu suuf nag nee na nañ ko lijjanti balaa Sénégal a tàbbi ci ak xeex nam xamee woon ci réewu Amérique latine ya kàddoom yaa ngi ci laas yéene kaay yéene kaay bi di la quotidien xëy dalal góor gi siis moo yor jëflante bitim réew ci parti bi di PS yekk na nag Serigne Mbaye Thiam kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee yaw seetal góor gi siis nee na Serigne bay caam jekkut ci jiite PS du tus du dara ndax ku ko fekk muy wax naan Aminata mi dénk parti bi yàgg na fa ñoo war a dem élection fal ku remplacer Ousmane na loolu teg si PS yi waxut ko te man Aminata Mbengue Ndiaye laa gis ne moo gën a jekk ci jiite PS ki jiite woon mairie bu ndakaaru xalifa sàll bokkoon PS fas yéene naa xamal tournée nationale dugg Sénégal ba taxawal fajir yéene kaay na Khalifa sàll génn na ca tekk tekkaaralam ga ma ngay wax ak ay ndawam la mu ñu wax moom vox populi mooy ne chrétien yi église bi jàngu bi benn fan ci weeru novembre la ñu ubbi waat seen église yi mees ya continué xam ngeen ma yéena ngi ko mbas mi moo taxoon ñu dakkal ko ña ñu dakkal jëf ju ñaaw jañ doon def mooy ñaar fukki góor jigéen ñu tegoon loxo ca Mermoz turbine yéene kaay yóbbu nañ leen ca tribunal ba ñu jàkkaloo xàttekat ya bañ leen laajee waaye waaye liñ leen tuumal te jàppee leen ko yéen a ko doon def góor jigéen yépp rawatina ñaar fukki ya fa ñoo taxaw na leen hëy yow attakat bi laay wax ñun hay góor jigéen lañ nëbb wuñ pour muy leer vox populi ne xam nga lan moo leen nar a yoot ñaari atu kaso lañ leen nar a tëj kenn ku ne ndax loolu la procureur ba sàkku source a yéen kaay ne man kay gis ngeen tribunal ba képp ku fa nekkoon fa ngaa jommi fa ngay jaaxle ndax góor jigéen bañ taxawee fañ doon wax ni jigéen di waxee di def manière jigéen fa ngay foog na sax lii théâtre la fekk dëgg la tàggat yaram classico bu mag ba Barça Real tey bu ñaari waxtu ci bëccëg jotee lay xam stade yéen yéene kaay na dana tàng dana saf nag donte Real fan yi ñu koy bëgg a waaye tey yàlla na Real mbuqi Barça sunu lamb yéene kaay ne lu jëm ci wàllu kiy jiite CNC bi Mohamed Ndao Tyson bind na ab leetar Matar Ba ma ba loolu dem ci source ay yéene kaay bi ñu xamal ne waa ji ñu rayoon ca dëkk ba ñu wax guy génne nekk ca diwaanu Mbàkke ka ñu njort ne moo ko rey takk deri teg nañ ko loxo ca diwaanu Gosaas ña ñu teg loxo ca diwaanu Tëngéej les éco yéene kaay moo ñu ko xamal benn soxna suñuy wax Ami la ñu bett ca mbeddi Tëngéej ya ñu lal ab jigéen bi nag moom fay jaay boppam fa waxanteeg Ibrahima bañ juboo Ibrahima xamul néeg bu mu ko dugal rek ñu nekkal ko ca mbedd ma aay waa ma ne demoon sax ci néegi yàqu yi ak kër yi ñuy tabax ta pareegut sax moo gën loolu ngeen def soo demee bay def lu bon la gën mooy nga nëbbu ko xaj yi sax fi mu toll ni ñu ngi làqatu di bu ñu def loolu